journaliste pare hmm. leen liggéey bii ngeen di liggéey nii tax ci jaamu yàlla dundal seen njaboot chaque jour bu ngeen tëddee bu leen nelaw bu ngeen di dox bu seen xel dal ndax jàpp leen ni yéen ñëpp mën nañ leen jël jaay leen doole tëj leen ci kaso bi comme ni ñu def seen moroomu journaliste pare leen ah daal seen fanaanal d'accord d'accord merci beaucoup jërëjëf jërëjëf ñu mën a jël ñeneen yi tam ñi nga xam ne bëgg nañu euh, participer ci waxtaan bi salaamaaleykum waaleykum salaam sëñ bi waaw ñu ngi lay waaw delloo ziar sëñ bi maa ngi wootee Paris. Mhm. Eh, e maa ngi tudd Youssoufa. Youssoufa d'accord kon ñu bàyyi la nga joxe sa xalaat ci waxtaan bi. waaw ñun de actuellement à l'étranger dans la diaspora am nañ jàkkare bu métti. Mhm. parce que situation bi daal euh, dafa jéggi dayoo c'est ça qu'on dit ah jéggi dayoo. Mhm. parce que lu ñuy dund nii ce n'est plus état de droit. Mhm. Sénégal actuellement amatul loi amatul droit amatul justice parce que lu ñuy gis nii ça dépasse largement le cadre de Ousmane Sonko. Mhm. quand on gaze des journalistes. des avocats. ñu empêcher avocats dem gis ay seen clients. loolu doonatul république. mafia lay gën a nduróol actuellement. Parce que même le plus grand des, des délinquants, le plus grand criminel, mm -hmm. il a droit à avoir mhm. c'est le minimum c'est le minimum. donc fu mu nekk nii. Mhm. man loolu lu ma gëm mooy Sénégalais ils ont le mhm. de sortir manifester pacifiquement. wane ni te lu ñuy def Sénégal nii. jëmul kër parce que lii suñ ko bàyyee nii. yàlla xam na ni il va ok il va réussir à éliminer Sonko mais lii fi mu jëm nii di kàttu la ñëpp de. li on va tout droit vers une dictature ma monsieur mhm. suñ ko nee nii ñu bàyyi mu jàll nii mhm. on bafoue les droits des personnes comme ça journalistes yi ku génn ñu mhm. gazé la ku génn d'ailleurs hier il semble que am benn journaliste boo ne boo xam ne dañ ko dóor directement lacrymogène ci dënn bi waay sama waay même pas y a même pas quinze minutes je regardais on de justice on gaze des on gaze des avocats va où résidence surveillée soo ko décidé dafa am war a am décision de justice mhm. lii soo ñëwoon France fii Paris mhm. yàlla xam ne ni benn policier sañu ta ñëw mettre quelqu'un en résidence surveillée avocat ñëw mu mu koy répondre d'une certaine manière mënul nekk sax mënul nekk mhm. benn policier xalaatu ko mais fii y a y a une règle d'impunité au Sénégal boo xam ne lu neex sa waay def parce que ils sont protégés par une certaine euh, oligarchie boo xam ne les lois elles sont applicables mhm. que sur les autres ñoom daal ñoom ñoo yor loi yi ils les appliquent sur les autres mhm. et pour man mënul woy te un dernier point mhm. maa ngi gis ce matin des documents personnels d'Ousmane Sonko ñu koy partage internet bi nii par un compte tout le monde connaît un faux compte que tout le monde connaît je vais pas citer mais mais ça, ça montre mon papa un gendarme j'ai grandi dans une caserne de gendarmerie mm -hmm. mais j'ai eu honte ce matin en fait parce que j'ai eu honte parce que j'ai toute ma vocation j'ai voulu faire la Britannie allô oui maladie ouais, j'ai voulu faire la Britannie militaire de Saint-Louis lorsque j'étais gamin mm -hmm. et alors finalement mu def ni que j'ai fini par dans les sciences ba ñëw di liggéey ici mais j'ai la plus grande honte de ma vie ce matin mm -hmm. comment des de l'ordre peuvent accepter que des clichés mmh. d'une certaine réquisition qu'ils ont fait sur Ousmane Sonko boo xam ne ñoom dañuy wax ne Ousmane Sonko il n'est pas en état d'arrestation mhm. mais ils ont pris ses affaires ils ont pris des photos mhm. di ko véhiculer sur des faux comptes qui se moquent de Ousmane Sonko par-ci par-là mais on est où mhm. on n'est plus dans un état là le grand suñu gendarmerie actuellement apparemment ils sont instrumentalisés par un certain parti pour faire des attaques politiques merci contre beaucoup. un jërëjëf sëñ bi waaw merci merci sëñ bi jërëjëf désolé jërëjëf merci mi ngi noonu donc yéen itam euh, mën ngeen euh, partager euh, ci waxtaan bi joxe seen xalaat comme ni ma ko doon waxee léegi rek soo ko gannaaw ba mu décidé ñëw fi nga xamante ne nii moom moo di Dakar rallié ko par ab caravane donc dañu ko mujjee Euh, indi fii ci cité kër góor gi ci këram waaye ñu jël ki nga xamante ne nii euh, moom moo nekk si ligne bi aloo salaamaaleykum allo salaamaaleykum. maaleykum salaam sëñ bi na def. waaw soxna si ñu ngi ziar bu baax. waaw yal yàlla dolli ziar. Euh, tur la ak fan nga ñu woowee. man la Aïcha Diop. Mhm. Paris ma bëggoon participer ci émission bi. d'accord yow rek la ñuy déglu. man de daa am lu ma naqari mhm. li ma naqari nag mhm. Ousmane Sonko moo ma ko teg te duma ko baal mukk ci àddina mhm. parce que coono gi ñu nekkee ak stress gi ak tiit gi ñu nekkee nii duma ko baal Ousmane Sonko mosoon naa woote seen émission ma ne Ousmane Sonko na bàyyi parce que bis bu jugee ñu di ko jéem a jàppoo la ñu koy tëj ñun ñoo ciy nekk direct sonn ñun ñooy toog duñu ndekki duñu añ duñu yee duñu reer ndax am cofeel ak yërmande ci moom mais xeex bi mu bëgg a song mënu ci am ndam parce que système la système bi ñu ko wër ñoo bari Serigne Touba bi ko tubaab bi ñëw di ko jël si image boobu bu ma koy sànn damay bëgg dugg ci biir suuf si sunu maam yi ñun ñëpp ñu ngi toogoon tubaab yi yenu yóbbu takk yóbbu ba mu neex la ñu indi ko. Mamadou Dia noonu la ko tubaab yi def système boobu moo fi nekk ba tey xam nga ni Macky Sall lii muy def nii du dëgg du yoon ku wax ak sa akulaay taala ak sa tëraay bàmmeel nga xam ne dëgg du yoon te ñëpp gis nañ ko Sénégal war ngër këpp ñëpp kilifa diine kilifa aada suñu maam yu baax yi ñëpp ñëpp ñëpp gis nañ li Macky Sall di def te kenn du wax kenn du wax nit ñi nañu bàyyi di di critiquer ay ñoom Moussa Fall ay ñoom Antoine defuñu dara affaire principale bi Macky Sall la hmm. ak soxnaam Mayram Faye Sall hmm. lii lépp ñoom la xam nga ni Macky Sall bu amee fit tëj kër Ousmane Sonko te amul mandat d'arrêt juge bind ko mu tëj ko ci këram pour ñu génne dem jëndi mburu wala ñu dem de dem dugg ji añ togg sax mënu ko ñëpp tëj seen bët te kenn du wax xam nga ni am na lu ko dooleel hmm. Macky Sall bu amee fit bi am na lu ko dooleel Donald Trump sëñ bi tappeel ci google nga setaan ko mm-hmm. ba mu toogee ñu gañee ko mu war a jug mu ne du jug mm-hmm. chef d'état des major des armées moo taxaw ne ko da ngay jug wala ñu yëkkati la mm-hmm. parce que dëkk yooyu c'est dëkk de démocratie dafa jug pouvoir bi waroo moroomam toog lii mooy dëgg mais Macky Sall bu amee fit di def lii te kenn waxul dafa am ñu ko dooleel ña ko dooleel nag mooy ña kaw waaye yàlla na yàlla sàmm Ousmane Sonko Ousmane Sonko na bàyyi bu ma sonn man xale yi dee rek laa yërëm xale yi ñuy jàpp di leen rey gratuitement man ñoom rek laa yërëm parce que tey buñ ko jàppoon ñun dégg nañu li Farba Ngom wax démb Farba Ngom bu amee fit ba wax lii am na lu tax bu amee fit ba wax lii am na lu tax te bis buñ ko condamné le premier wala ñu exi exilé ko parce que yëg nañu information ni ñu ngi koy waaj a exi e-, e-, e-, exilé mhm. bis buñ ko defoon tey xale yi génn rek bu cinquante xale deewoon ñaanuma ko yàlla soixante Mhm. kenn du jug jàppale Sénégal kenn kenn du policier du gendarme du armée du kenn ay benn benn ñooy nekk ci suuf di fippu mais ña sa mag ña sa kaw du ñu jàppale kenn mhm. maki Sall la ñu àndal loolu ñëpp xam nañ ko mhm. maki Sall matul cent kilos benn nit toog di def lu rëy lii te ñëpp teg ci seen bët kenn mënul wax xam nga ne am na lu ko dooleel waaye yàlla na yàlla jàppale Ousmane Sonko na bàyyi. xeex bi xam nañ ne ku am jom la ku bëgg defal Sénégal la joxoon nañu rêve mhm. parce que projet bi mu ñu ko waxee rêve la mhm. mais xam nañu mënu réaliser mhm. année soixante ñu fi toogoon ba tey ñoo fi toog sëñ bi na bàyyi man daal lii laa am lu may wax salaamaaleykum. d'accord léegi léegi yow ci le premier bi ñu jëm euh, bon mu mel ni euh, kooku kooku dem na.